dañ ne ma jéemi tànk lu ma waxoon ci arab mu nekk ci olof mais nag ñu may déglu suma mbokk taal bi ngeen jégal ma parce que olof déggoon naa ko mais na léegi déggatuma ko parce que yàgg na lool bi ma fi gajee buñ may buñ ma eewee bu ma bàyyi ewe mu andi bàyyi si sa andil ma ci bàyyi ñu ew ma ma dellu Nigéria euh, kaanat sanata alfin wa tisamitin wa arba wa sabiin ah, xam nga bu fekki noonu la bu ma nee fàtte naa olof a wala mënuma wax olof bi leeri bu seetu wet loolu mën naa wax loolu euh, lu ma jéem wax fii mooy dañ ne woon wax ci affaire muskilaat al asr jamono bi dafa feesi dell ak machaakil sawaun ala mustawa dawla ala ala mustawa dawla affaire addina la aw wala affaire réew la aw wala affaire quartier la aw wala affaire dëkk la aw wala affaire mbokk dafa feesi dell mais temps buñ ma waxee naa bind mashakil dañ ma newoon euh, ñeent euh, fukki minute lañ la jox ma gis ne ñeent fukki minute daanaka bëri na bëriwut euh, affaire bi te itam neew nañ ma naa jéem a wax bu ma waxee bi naa jéem a wax lan maa huwa alxulul naka lañ koy naka lañ koy lan alxulul naka lañ koy defare parce que loolu la lay yàq la lii nag naka lañ koy defar euh, gannaaw ba ma suñ suma sëriñ yi euh, commencé man ci xaadimal umma ba jëm ci jaar naa ci al imaamul akbar euh, Cheikh Tidiane doomi suñ sëriñ sëriñ Aliou Cissé ak an al masri al rasmi sëriñ Mahi ak doomi baay bu mag ak bu gën a mag parce que man suma gis-gis doomi baay amul bu ndaw ñëpp doomi baay dañ mag ku mag ak ku gën a mag euh, dama ne woon euh, jamono bi daf fees dell ak ak ay machaakil mais nag néew na mbooloo mi maa ngi ennu néew waa Kano waa Kano benn dëkk la ba nga xam ne euh, dañ bëggoon bëgg nañ bàyyi bu ma nee bëggoon nañ loolu jaadu bëgg nañ bàyyi ba tey bàyyi bëgg na leen ba tey tëral nañ bàyyi bàyyi tëral nañ leen itam euh, dafa bokk ci lu mu wax mu ne waa Kano ñooñu yàlla ni yàlla fay leen ak lu baax ñooñu ñooyu suma mbokk jàpp nañ zahiri sharia itam jeexa nañ ci yàlla gisi nga nga jàpp tariqa nga euh, jeex ci yàlla ak neex ak jafe am parce que ñenn ñi lu tax lañ contre sufiyanke xamuñ lan mooy jeex ci yàlla jeex ci yàlla nag yow yaa koy sàkku c'est-à-dire dañ koy sàkku mais nubuwa moom duñ ko sàkku waaw xam yàlla nag yàlla dafa la waral nga xam ko kemtilaay ok baax na baax na baax na baax na baax na <laughs> euh, waxaat nañ ma ñu ne waxtu bi guddut yaatut waruma yaatal wax bi bon al irhaabu wa tatarruf mooy dafa bokk ci li nga xam ne mooy sonal àdduna bi euh, a tatarruf mooy lan dafa am ay nit ñu nga xam ne dañu jàng foog naa ne bu ma nee a tatarruf jàng foog naa ne dana mën a danañ ko nangu ñoom dañ dañu jàng parce que islam al ummat al islamia ummatun wasat ñoom dañu dem ci digg julli dëgg dafay dem ci digg mais jàng ndeyjoor wala caamooy loolu islaam waxut ko te te te nangut ak moom bon dafa am ay nit ci jamono bi ñu nga xam ne ñoom dañu jàng te itam du jàng bi rek mooy problème islaam dañu gis ne ñoom ñooy nekk ci islaam dëgg-dëgg képp koo xam ne du ñoom jàng na teewut islaam islaam eh, eh, jaamut yàlla ak islaam bu baax ñetteel bi ñoom dañu jëfandikoo euh, al unf euh, euh, lañ unf violence mais bi France la ci olof ah <laughs> eh, al unf mooy nga ah jafeel voilà nga jafel ah, ñoom dañ ñu jafeel mbir mi mbiram diine dañ ko jafeel te loolu dafa uute ak lu yàlla wax yàlla dafa ne ah, ah, ah waaw baax na baax na kon mbir mi day comme lu ma ko waxoon daal xam ngeen bëggoon naa wax ay wax ci olof mais nag léeg-léeg te ñu rëcc te waxtu bi bariwut te yaatuwut te euh, ñu waroon wax fii bari nañ euh, maa ngi gërëm maa ngi sant euh, alhamdulilah rabbil alamin kon ku koy mën a def tarjama na jéem a wax lu ma wax ci olof parce que suma olof setut leerut mais nag jéem jéem la asalaamaaleykum wa rahmatullah